man de sama kàddu gannaaw kàddu kilifa yi moo di alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu lu neex la de